saraax la ñuy def ci xew-xewu lamb tey fekk fa Paul Maurice ma sunu lamb lu xatti ba xam fan la nekk ak ci lan la nekk moom mi nga xam ne fu ñu ko tuddee woon xel yi dem ci aada ak cosaan ak mën a bëre moom Paul Maurice la sunu lamb xam le ne jamono yi ñu koy mujjee gis ñu ngi ko doon dégg ca Mali te njortu nañ ne ba léegi ni Paul Maurice a nga fa làqatu ba ñu ko lijjantee wër ko ba gis ko moom Paul Maurice wax na leen la ko naqari ci lamb kàddu yi mu dénk ciy mënoon naa yóbbu kase mbëri ca 500 millions jamono joojee amoon naa plan de carrière boo xam ne bu ma ko réussiroon làmb neex kalaaf bu ma duggoon laa bëggoon teb bi daan ñépp ña fa nekkoon bu ma paree dem ci Balla Gaye 2 wala Eumeu loolee ma ñàkk réaliser bokk na ci li ma gën a naqari kalaaf boobee nag li ma ko ñàkkuloo man xam naa ko bu baax du mystique du dara waaye dañ maa préparé wutoon ci wàllu boxe sama pool man la woon Modou Lo demam du dem moom la mu xam ne mooy Alioune Sarr dañu ko war a delloo njukkal bu lamb ji neexee bëri xaalis c'est grâce à lui bu lamb ji organisé tegu ci yoon c'est grâce à lui man Paul Maurice li ma gis mooy na Alioune des ci bopp CNG bi président Alioune dafa war a des warta dem fenn Fallou Ndiaye njiital Ndiaye production ne ca tonn ne ko waxuma la Alioune Sarr waaye CNG bi yépp war a dem seen yoon CNG bi liñ leen doon xaari gisatuñ ci dara jamono yoon ay problème yu méttee métti la xaalis bu baree bari ngay fay ca CNG condition yi ñu CNG tegal dafa métti ba moo waral at mu jot nga gis ay promoteur yu bees gis ay promoteur yu bàyyi làmb loolee nag dañ ko war a faj ci ni mu gën a gaawee te CNG dem bàyyi ñug làmb ji journal ba xam le ne demuk Alioune gi wala tooguk Alioune dafa indi xaajaloo ci làmb ji acteuru làmb yi ñenn ñi dañoo ne Alioune na fi jóge doy na sëkk ñeneen ñi ne dafa war a toog continuer ndax moo jig làmb ji ña bëgg Alioune Sarr bàyyi CNG dem yoonam mooy booy kay reeki mbokkam booy kay reeki naataangoom booy kay reeki àndandoom te bu dee beneen vague bi bëgg Alioune Sarr resté ñoom ñu ngi ci suuf ay observateur lañu ak ay analyste fa nuy jeexale mooy ci Ama Baldé bëgg-bëggam ak mébétam ak la ferenklaayu cim xelam Ama Baldé fi mu toll ci làmb lenn rek mooy mébétam roi des arènes bi nga xam ne Tyson dugal na ko Pikine Eumeu Sène dugal ko Pikine moom la bëgg a dugalaat Pikine beneen ba mooy kuréelu roi des arènes boobee Eumeu Sène yoroon dugal ko biir Pikine ak làmb ne làmb ja Lo ñëw ko coppet yóbbu ko parcelle loolee a nangu ji a yi li a fës di yéen kaay bi ñu leen jox dig daje ba ëllëg incha allah